wala mënoo leen dalal ki nga xamante ni moom moom mooy nekk suñu seen réew yooyu. Mm-hmm. muy muy muy muy muy muy muy provoqué. politiquement pour que mu am parce que en politique si tu déranges kii jiite mooy que yaa ngi dem ci trouble politique donc dans ce cas le le, le régime actuel dafay am responsabilité mu dakkal loolu sinon loolu mooy faral ngay dégg naan euh, rappel de magist de d'un ambassade maanaam ñu avertir la nga bañ ñu ne la léegi jëlal sa kaake ak sa ambassade di ngeen dellu parce que ñun mënuñu am ak yow relation yu baax ba pare mhm. nga héberger koo xamante ni moom moo ñu perturber pour ñu jiite réew mi loolu nag su mhm. euh, mooy tànn entre mu dakkal coopération Sénégal moo digganteem ak Sénégal wala mu noppiloo ki nga xamante moom mooy déranger. donc tous les cas. Mhm. ñu naan benn moo ci am. Mhm. et que France aussi dañuy sàmm seen ah. <laughs> donc je pense que. Ah, <laughs> ñoom euh, moo ko waxoon. ñu ne amuñu ñu am en réalité c'est loolu phrase boobu elle n'est pas française. Mhm. cette phrase elle est elle est amul xarit. yu mu am mooy intérêt l' du Sénégal fii. tu penses du Sénégal. dina fi xool du ñu lëkkaloo ak diw parce que voilà c'est un groupe de d'homosexuels wala c'est un groupe de lesbiennes voilà c'est un groupe de francs euh, du ñu lëkkaloo ak moom ça l'intéresse euh, état au Sénégal c'est pas son problème état au Sénégal lu ko intéressé mooy si ma ànd ak yow lan laa ci mun am cest di dire que loolu nag askan bi peut-être moo comprendre loolu tey aujourd'hui si le Sénégal euh, bu daggee relation ak France je pense que boo daggee relation relation ak France je pense que life day dina tu penses que l'ANIDA dafay dafay des mais dafay dem yoonam. Mhm. tu penses que le parlement européen dina amati relation ak yow en tant que. mais quand même ça c'est une question de bon sens c'est-à-dire que boo boo daggee sa relation ak France. mais mhm. jàppale lépp lu France amoon fii da koy yóbbaale. ok euh, Mimi Touré elle est moom li jàpp mooy assemblée bi dañu ko war a euh, tas euh, te ki sax di premier ministre war dem taxaw ci assemblée bi parce que bu fa demee gars yi ko tegal ay ndëgg sërëx yoo xam ne soo moytul dina xaw compliqué ci moom moom dafa leen jàpp sax ñii tey doonu ñoo xam ne ñu légitime la naka nga jàngate yooyu les cadres certainement fan yëkkati woon na fi ay cadres ne l'assemblée ne pas certainement li nga xam ne moo di les les cinquante quatre pour cent Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaw xam nga Mimi d'abord. eh sénégalaise la d'abord ñaar. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, responsable politique la mu nekk même leader. oui d'une formation politique. donc am na xalaat. Mm-hmm. wax ko mu wax lu mu bëgg. léegi xam nga le président de la le le le premier ministre du Mimi Touré moo koy yóbbu wala moo koy tere dem. wala du Mimi Touré mooy décider. war na dem wala warul dem loi bi ma ko la constitution du Sénégal moo ne le premier ministre comme nu Mimi Touré nu muy nekkoon premier ministre bu dem defi ko. Mhm. loi boobu moo ko waxaat changé wuñ fi dara. constitutionnel laa waxuma lay règlement intérieur de loi boobu moo ne bu ñu tabbee premier ministre dafa war a dem defi déclaration de politique générale ci kanamu. assemblée nationale bi point article 55. léegi nag mi lu muy wax noonu loolu mbirum politique la su demee dañ lay defal ndégg sërëg donc président peut-être dañ koy poser question kii du nekk des question indiscrètes ainsi de suite ñu war a wax ci économie ñu wax ci euh, Adji Sarr kañ ko mujjee gis wala kañ na gars koy xam naa loolu la ñu xaaral assemblée na justement way ñoom ñoom seen yoon nekkul ci quoi <laughs> ak gars yi ci politique lañ nekk léegi nag loolu jotewul ak dara farataay farata loolu ay détails la loolu vraiment amul benn sens parce que Adji Sarr na nekk si jàmm. mais est-ce que loolu loolu euh, moo tax mu ne ko bul dem ah, foofu. mais loolu. oui loolu mënoo ci sukkandiku nga ne nit du dem fenn nga mën a sukkandiku rek Ousmane Sonko foofu la mën a sukkandiku te heureusement ci texte am boobu noonu mu bind mënoo ci gis benn yoon du fa ñëw parce que su ma ñëwee da nga ne poser question yoo xam ne. waaw non non ko wax parce que xam nga loolu du motif. mun na wax ne du ma ñëw tant que règlement intérieur bi baaxul. léegi Mimi Touré moom su ma su ma nekkoon moom da naan Ousmane Sonko bul dem defi déclaration de politique générale yaa ngi ci dëgg exactement mu ngi ci dëgg maintenant tant que réglé wuñu règlement intérieur bi bul dem mais bu ñu ko réglé le président le premier ministre amatul excuse. en toute sincérité mais moom elle parle pour beaucoup plus de crédibilité justement à l'Assemblée. mais parce que les 54 pour cent qui ont voté Bassirou Diomaye maintenant ñi voté le c'est leneen la waxee non non non je suis désolé doxewul noonu. ok les députés dañ leen fal comme lu ñu falee président de la république dañoo am légitimité comme. Mhm. ni président de la république amee légitimité ñu tuddee ko la légitimité populaire. ñu am mandat un mandat boo xamante ni c'est une durée de cinq ans. Mhm. point donc ñu ne la une loi qui intervient qui dit maintenant la loi prévu que. lorsque assemblée bu amee deux ans et que mu am blocage des travaux dysfonctionnement institutionnel ou bien du parlement mhm. dans ce cas le président de la république bu informer le président de l'assemblée et le premier ministre il peut procéder à la dissolution de l'assemblée nationale via un décret ok maintenant le fait que mu am droit def loolu mais tekkul ne da ngay ñëw ôter la maintenant mën nga poser la question de qualité du parlement ok mais cette question du parlement mais mënoo ko régler tout de suite yow yaa yow moom mu Touré moom di wax tey bu muy dem. moo campagne campagne pourtant <laughs> député boobu muy wax ne amul qualité moom moom moo nekkoon euh, mandataire bi du moom moo nekkoon euh, coordinatrice. waay waay Kouramaki nekku foo. Kouramaki mu ngi foofu noonu nekku fa. est-ce que ki tey booy xool noo assemblée amul qualité mais moom même boo ko waxulee yaa ngi naan kii moom ci la bokk lu tax assemblée bi amul qualité bokk na si et pourtant moom moo bi. muy wër Sénégal ne woy votel leen ñu bu leen voté Ousmane Sonko yeewu askan bi dañuy taal dëkk bi woy aar Sénégal dañuy taal dëkk bi ñun bennoo ñoo baax Mimi moo doon wax loolu waxu ko woon. moo ko doon wax la waxu ko. waxoon na sax léegi nag tey yoru carte d'adresse bu suy voté ah, ñooñu ñooñu nekkoon ci liste yooyu ñoom ñoo nekk même député à l'Assemblée nationale. et tey boo demoon assemblée configuration bi les sénégal yi ñun ngi gis. député yi ñu gën a wax ne ñii nii ils ne sont pas la fierté du Sénégal mais ñu ngi bokk ci benn peut-être Koura Macky fa la bokk. Mm-hmm. moo fi taxaw di wax ay goon xaw ma lan. war a wax ci jafe-jafe sénégalais mu naan ay goon. waa amee di la xaar nga wax war a wax seen problème nga naan ay Sénégal euh, tey bu muy ñëwee ni laa solo voilà le bleu dans le la xam nu mu ko waxee. donc ay ñëw maam jaara war a wax ak sénégalais di sol le bleu sur du bleu donc pour dire ñooñu ñu ñu wax ne ñoom ñoo tax assemblée amul qualité. Mhm. ñoom ñoo yoroon seen liste daaw. de démb donc loolu mun du excuse. la meilleure manière de régler et la solution régler pour assemblée am qualité. Mhm. mu ngi dépendre ci nan ki ngay tànn pour mu doon député. ci yan critères nga koy tànn. et que loolu ça revient au parti politique. ñoo koy def c'est-à-dire que un parti politique. nga nekk un à Dakar sa bureau nekk Dakar. Mhm. nga bëgg a choisiral waa Kaolack seen député. loolu mooy lan waa Kaolack ñoo war a tànn député ñu proposé ko parti ñu validé point. et su boobaa kooku mooy digne représentant. Mm. mais Coura Macky fan la dëkk fan la dëkk Sénégal ci moom. <laughs> non député <laughs> député diaspora la. du Sénégal du kii la ah. fële la. Ah. dëkk ah, xaw ma fan la dëkk exactement Sénégal da ko xam. xaw ma ko <laughs> ah. léegi lu waroon am mooy. fi mu dëkk moom. ñooñu ñoo ko waroon désigner. ñu proposer ko parti bi. parti bi validé entériné ko mais bu boobaa bu fekkente ni léegi di choix bi choix bi dafay jóge ci parti bi. Mhm. pour dem ci base bi mais dafay am problème su boobaa li ngay am rek mooy député yi député du député du parti député de diw député de coalition ki naa la waxoon na Macky lu mu wax lay indi man du ma liir lu Macky Sall indi rek. lay jàllale. indee loolu ko fi am. te loolu warul am léegi nag boo ko bëggee régler da ngay commencer ki nga bëgg mu doon député. Mhm. du yow yaa koy askan bi ñoo koy tànnal seen bopp ñu naan kii lañ bëgg waa Kaolack ñoo la gën a xam Kaolack waa bu gën si ñoom waa Diourbel ñoo la gën a xam Diourbel waa bu gën si ñoom pourquoi léegi le président boo xamante ni xamul sax Kaolack amaana sa mosu fa añee mosu fa reere xamul luy jafe-jafe Kaolack mu tànnal waa kawlak parce que kooku sama parti la boobu la mooy loolu mm-hmm. après euh, boo ko bëggee régler c'est comme ça qu'il faut faire. ok ñëwaat ci beneen pàcc boo xam ne monsieur Thioune démb wax na ko ci waxtaanam mu jëm ci wàllum conseil supérieur de la magistrature moom nag li mu gëm ne na président dafa war a wéy di toog ci conseil supérieur de la magistrature mu mel ne nag sax